maître lan nga ñu mën wax ci xibaar bi ñu dégg ne am na ñenn ñu àndoon ak Ousmane sonk ñu am ñoo xam ci garde à vue la ñu nekkoon ñu levé ko waaye Ousmane Sonko dafay wéy di des eh, ci loxo takk der yi ndax dafa am mandat d'amener bu ñu ko war a yóbbu ci juge bi eh, lan nga ñu mën a wax ci xibaar boobu. waaw mooy li li nga wax rek je crois que ni nga ko waxee loolu la bon ñi nga xamante ne dañ leen téyewoon ak moom mooy garde du corps yi ñoom dañuy dem parce que garde à vue bi dañ ko trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation interdite donc comme levé nañ ko ñoom dañuy dem mais xam nga Sonko li ko fa bàyyi mooy mandat d'amener bi juge d'instruction bi def mandat d'amener buñ la ko defee mooy képp ki nga xamante ni agent de la force publique la fu mu la fekk da lay téye présenté la au juge d'instruction donc loolu moo tax biñ ko présenté vendredi juge d'instruction bi renvoyé loolu nañuy wax rek retour parquet la rek ci mu nekk ñu mën nañ ne retour de parquet la nekk mu delluwaat au niveau de la gendarmerie bi xaar pour ñu représenter waat ko au juge d'instruction demain matin mhm. donc il est toujours en dans une forme de détention parce que gis na ko ba dana juge d'instruction bi wax ndax daf koy bàyyi wala da koy téye d'accord mais maître man li ma bëggoon xam mooy xam naa loolu di ñu ci mën a gindi euh, naka ngay mën a nekkee garde à vue di jël mandat d'amener maanaam loolu naka la mën a demee waa procureur de la république moo jaxase jaxase yëf yi rek parce que dossier la boo xam ne nit dafa demoon. moom bu ko bu ko demande woon duñ ko ko yóbbul Ousmane Sonko comme mi ngi ci seen ay loxo wala Sonko Ousmane dafa am loo xam ne nanguwu ci euh, nanguwul nanguwul comparaître wala lan moo am parce que am na mandat bu ñu doon wax comparition ak yooyu. waaw xam nga ci mu nekkoon. Mhm. nekkoon garde à vue ci lañ def mandat d'amener mandat mandat de comparution. Mhm. mandat de comparution ñëwul sa bopp. mu ne leen man mënu leen mënuma ñëwal sama bopp parce que dama nekk en ñu à vue ñu toftal ci mandat d'amener mandat d'amener nekkatul da ngay ñëw sa bopp ne dañ lay jël si par force. Mm-hmm. donc ñaari procédure la nekk yoo xam dafa jaxasoo àndul. Mm-hmm. te lépp euh, jaxasoo bi yëpp fu mu jógee mooy problème mu jàpp bi ko jàpp bi mooy dem di wuyu ji.